jigéen sax jigéen sax buñ lay may jëkkër am na say mbokk yoo xam dina la laaj ba xam kii ñu lay may xam nga ko. Hmm? góor bi takk jabar dina la laaj ku jigéen ko ngay takk est-ce xam nga ko làmb noonu la war demee bu fekkee da ngay bëreeg adversaire boo xamante ne xamoo ko dangay dugg nga xool ay vidéo am xam lan mooy point fort ak point faible am. tubaab bi moo moo la gën a seetaan ji ba nekk Bombardier ngay dajeel daa tàppe Bombardier xam ne Bombardier amul garde moo tax gis nga nu mu def ko coqaas si suuf. Bombardier attaqué mu mu yëkkaat ko suuf Bombardier di dóor droite ba pare wàccee gauche bi benn coup la ko jox fii mu kaaw. daa yeewu di laaj fi mu ne. waaw daa xamoon daa xamoon di yeewu naan arbitre bi bu yàgg. <laughs> léegi léegi yow en tant que sénégalais. sama ah. sama xarit la. waaw dafa bu baax a baax a baax. loolu si la di loolu foog waaw maanaam lu ma wax nii ba pare naa Bombardier sama xarit la waaw loolu la. tey ñoom ñi nga xam ne ñooy sama papa Gaston Mbengue sama papa Bécaye Mbaye ah est-ce que tamit war nañu bàyyi suñu mbër yi ñu dem di di di di bërëj di di jaajëf ñoo xam ne dañuy dañuy kii dañuy diri avion ku yooyu dafa metti moo tax naan ab loolu ah, ndeysaan si yàlla si doon wax mbay saapa saapar na mbiri am na réeroo na mbiri am na réeroo mooy Bombardier bu xamoon waa ji day xëcc avion ay camion di ko xëcc du bëreeg waa ji de dégg naa ko nag mu ne day jël revanche Bombardier day jël revanche te yàlla xam na ni man fas yéene naa buy jël revanche sama kaw lay jaar par doog a dem waaw ndax parce que Bombardier soxla naa ko ci réew mi te daa war a bëreeg Balla Gaye <laughs> te gasoo nee na Bombardier dootul bëree waaw. du dem nee naa la Bombardier bu ndaree bëree ji waat ak keenee mu bëree woonam nit kee ma gis nga xam ne demi malaaka la. ke demi bu Bombardier dara demaat di di revanche sama kaw lay jaar pare doog a dem. suñu kaw lay jaar doog a dem. suñu papa jooju dañuy. <laughs> Bombardier suñu papa la mm. boo naree demaat foofu nga xamante ne ni tubaarkàlla fa la ñuy diree ay avion ñun xamuñu loolu dañ laa soxla ci réew mii Sénégal suñu gaal fii dañ la fee soxla